asalaamaaleykum wa rahmatullah ma ngi tudd Amadou Talibé Ba ma ngi jógee Casamance ma ngi ñëw ñëw naa fii si Mbour si Guy Mouride e, ma ngi la ñaan mbokk yi képp kuy am soxla si wàllu ñaan e, lu mel nii kuy am ay jafe-jafe ak pour am doom ci wàllu sëy ci wàllu feebar yoo xamante ne ay rab la wala kuy yore ay gént wala ci wàllu kaso kep ko soxla sama liggey bi nañu set sima fi ma ci Mbuur ma ngi joge ma ngi tuddu Amad Talibé Ba ma ngi mangi la kasamas, Conakry ma ngi fi Casamance ñewna ma ngi fi ma ngi dekk bu ñu si région de sidjou mu nekk ñëw ma ngi ni si Guy Mouride ma ngi ñaan mbokki kep ko am soxla ci wàllu yi ak lenn am na yoo xamante ne du ñu ko mën a wax eh, ci biti fokk ñu jàkkaarloo lii rek laa leen di lancer képp ku soxla rek na ñëw xool day xam ne du ma mën a wax ne dama wuute ak ñeneen waaye boroom bu ñëwee bu gisante ak man dina xam lan moo am différence ñaan naa leen mbokk yi képp ku soxla si wàllu yi fexe leen sama numéro téléphone 77 715 02 so léeg-léeg ngeen jokkoo ak man ngeen xool alhamdulilah salaamaaleykum